non défaite tey bi sama waa ji na ñëpp métti na ñëpp on devait se qualifier proprement même. match contre Japon lan waroon gagner. est-ce que comprendre contre Japon lan waroon dóor foofu lan waroon am occasion gagné match bii nii match passement bag la waroon dóor. yaa ngi soxla bii 1-0 ñu mën la amoo koy génnee nga jël. Il nga premier premier match Sadio même chose le leader technique leader technique bi nga jël 66e minute nga nek di jongler xamul Sénégal lu mu xamul temps dañ ci coupe du monde. parce que am nañ penalty arbitre bi tiré wu ko comme Nigéria tamit la même sos comme bu dee loolu la kay nañu génnee compétition bi nañ ko génne nañu génnee africain ñoom ñu des ak seen coupe du monde te ñun tamit ñu des ci suñu coupe d'Afrique mu jeex tàkk. mais mënoo bëgg a nekk en tant qu'attaquant bëgg def effort. wóobatiku bëgg a dimbali mais day bëgg def défense mënul nekk sama waa ji mënul nekk. arim boo xam ne mënoo continuer match bi mënoo bëgg a wàcc ba ci suuf bëgg a a dem def effort ci kaw mënul nekk sam waa ba pare na changement yoo xam a a na mu dugal waagay parce que waagay la moo dugal parce que mi ngi compétition bi bu dugaloon beneen changement match bi day dañuy dañuy ma vraiment lii du yoon parce que joueurs yi bari nañu européen bari nañu ñoo xam ne ñu ngi football championnat Europe mais amuñu mentalité boo xam ne nii war nañ mën a gérer match quoi franchement match nul sa un point du ko gérer. wax dëgg yàlla ñu ngi leen di ñaanal ñu ngi encouragé jour yëpp bàyyiwuñu kenn waaw di leen wax nag sa kaw sa kanam ñun toujours ñu ngi seen ginnaaw te nag dinañ leen xaar dinañ leen teeru indileen fii biir Dakar incha allah rabbi merci. nañ lu waar rek yàlla baax na. ñu jàppaat si rek ñun ñëpp ñu jàppaat si rek xëy na fii ñu waroon yem xam nga ñu sant yàlla Allemagne ñibbi na démb Nigéria ñibbi na Afrique yëpp ñibbi nañu mais comme ñu ñoo si topp garaaw lañ sant yàlla rek beneen yoon ñu defar. ay xale lañu perte ñu dara il faut nit ñi gëm ne Allemagne ñoo ñu ci jiitu fuuf te perte nañu lan mooy waral découragé nañu gëm suñu bopp rek te dëggal suñu bopp buñ ci delloo yàlla mën na lu ne.